dund génn Sénégal dem dundi feneen sax gën a yomb dund Sénégal léegi ndax Sénégal léegi wax dëgg fa yàlla man daal su yàggee ni damay gàddaayu dem sama yoon. ndax dundu gu seet. mooy parce que boo xoolee léegi jamono ji jigéen ñi bu góor ñi defee xaaj li xaaj bi yëpp ñoom ñoo koy def ku ñu mënoon jàppalee dundu gi wàññeeku loolu moo ñu gën a arrangé surtout diwlin mille 20 litres ëpp na trop. ceeb tamit seer marché bi demeewul noonu góor ñi bu doon seen sago ñu def lépp mais bu ñu defee xaaj. yow yaay def lu ñu ci dimbali ñun ñuy jigéen ñi la ñuy yàpp bi moom moo ngay xamle ne yàpp bi seer na lool ba jéeg yi dayoo waaye itam moo ngay wax xamle ne bu nguur gi wàññiwul yi njëg moom dina jóge Sénégal wutali beneen dëkk. waaw yàpp bi moom instant bi lu mu yokkee sax dafa jéggi dayoo. ndax génn Sénégal dem dund feneen sax gën a yomb dund Sénégal léegi ndax Sénégal léegi wax dëgg fa yàlla man daal su yàggee ni damay gàddaayu dem sama yoon. ah dund bi am njaboot metti waaye itam nekk yaay gën diis ndax ku sañoon sa doom lekk ba suur ci lu baax waaye mu doon lu jafe ci jamono ji ci mim réew ndax dund gi yépp seer moo tax askanub Sénégal rawatina jigéen ñi ñoo ngay woo nguuru Sénégal ñu woyafal gi lay dund ndax njaboot yi gis seen bopp. ah dund bi de moom wax dëgg yàlla cher na metti na moom dund gi moom metti na ci ñun metti na suñuy boroom kër. dañuy def nag maximum parce que dundal sa njaboot ci jaamu yàlla la bokk. madame Fall moom naka moo ngay wax ne jigéen yi bu góor defee cinquante ñoom dañuy def cinquante li ci ëpp sax ci biir jamono ñoom ñoo ngi koy def moo tax ñu ngi ak yiis ak naka ndax dund gu seet.